ami fidèle internet yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy euh, euh, yi nga xamante ni ñoo fi nekk euh, Dakar Buzz Univers Info People 221 di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gannaaw ba nga xamante ni borom dogal na te ndogal li nga xamante ni moom la suñu borom dogal dañu koy nangu soxna jaaga doonoon jenn jigéen doonoon koo xamante ni àdduna wërngal këpp seede woon nañ baaxam waaye seede woon nañ aussi tamit njàmbureem seede woon nañ maanu dem waaye seede nañ aussi tamit bëgg gi nga xamante ni moom la bëggoon rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ma toog ak naa ni euh, euh, moom xam na lu bare bari ci soxna si nga xamante ni moo fi jógee mu di soxna jaaga oustaz Mouhamed Mbaye maa ngi lay ziar bu baax baax di la jox sa wàccuwaay di la mastaw. Abdou Saliou maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar yow itam bu baax a baax a baax di nuyu waa peuple de xam nga nu ñu koy waxatee ndax jaxasoo vingt 221. Mhm. nuyu bu baax a baax a baax ki nga xamante ni moom nga moom itam kenn la ci man. Mhm. tabaarakallaahu ni ko alxuraan di waxee awalam yaraw anna natil arda nanqusuha min atrafiha wallahu yaxkumu laa muaqiba li xukmihi wa huwa xisaab yàlla buur la boroom la waaye sëñ Mansour Sy Djamil sama nee na buur la gën a doon boroom la gën a doon buur yàlla nag bu soxlaa kenn du ni pourquoi wallahu yaxkum yàlla moom mooy atte laa muaqiba li xukmihi atte yàlla amul pourquoi tey li moom moo neex yàlla ci mission wu kum fi indi woon boole ñaari nit joxoon leen mission àdduna ñu ñëw kenn matal ko jiitu ki ci des daal di ko fekki euh, bés la boo xamante ni démb la waaye ku xëy tey ci samedi gi boo ko yëgee di nga ni e ci mbetteel boo xamante ni moom ngay am mu nekkoon koo xamante ni nag man sama sama yaay la woon mm-hmm. yaakaar naa ñu bare bare xam nañu loolu aljuma su mu génnee télé këram laay dem mm-hmm. fa laay fréquenté man ak moom ñooy añandoo Mm-hmm. ajjuma yu bare bare bare bare bare bare bu nu ñëwee li ma gën a neex mooy suñu waxtaan yonent bi rek lay doon sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa déggoon dafa nekkoon jigéen ju discrète Abdou Saliou mm-hmm. daan na ñëw mu wax ma wax ni ma Mouhamed maa ngi lay wax nangam bii de waaye na yem ci suñu diggante ñun ñaar wallahi yàlla seede na ko mm-hmm. bu ma ñëwee yenn saa mu wax ma ci waali ni ma nangam bi ak nangam bi waaye na yem suñu diggante de man ko yow sama yaay nga sama féete nga yenn saa yi ma ñëw mu wax ma benn gént yenn saa yi waali def benn geste mu laaj ma ma ni ko nangam du yàgg tuuti wàlli def loolu rek mu woo ma téléphone même bu dara amee bu dara amee xam nga téléphone moom du fen même bu dara amee loo xamante ni nit ñi ñu ngi ciy mbamb sax dina ni ma xoolal vidéo nangam bi lan nga ci xalaat yaakaar naa yàgg naa la ko wan. Mhm. am na bés boo xamante ni Wally dafa doon def euh, xaw ma soirée la xaw ma am ay jigéen yu dugg solo naka sudul noonu. Mhm. xaw ma ndax seetaanoon ngeen ko. Mhm. mais ci saa si daf ma yónnee vidéo yi ni ma ni ma xoolal réaction Wally ni ma ni ma xoolal kanamam affaire yi sax daf ko bett yàlla seede na ko yónnee ma vidéo yi. Mhm. ma ne ko li li waykat ba wayoon moo ci nekk nit ku lay wut jéem-jéem jotu la day xool fi la gën a jege mu jaare fa yàqal la. Mhm. ma ne ko yooyu la rek waaye àdduna moom moo ni mel. Mhm. ndax kuy dund faw ngay dégg. te yonent bi dafa waxoon ni fa inna kullu zi ni'matin maxsuuda borom teraanga boo gis dañ koy iñaane. mais Abdou Saliou ku bëgg yonent bi dem na. ku bëgg bi. rangooñam bi mu mujjee génn lii ma lay wax nii. Cheikh Sarr dafa jóge umra ma nekk kër ga mu tombeek aljuma juste Cheikh di ma woo lu ñuy wax man ko pourtant maa ngi ni toog ak sama yaay nii aljuma ju jot ñoom ñëpp xamoon suñu féete man ak moom mm-hmm. mu ne ma jox ma seex ma ziar ko waaye Mouhamed ma jox ko Cheikh Sarr Cheikh di wax ak moom di wax ak moom ba ci àgg muy jooy jooy bay dóor tànk yi ba Mouhamed doomam daa daw ne ma ah waa yow lu xew ak sa yaay ma ne ko sama yaay daal Cheikh Sarr laa ko jox léegi rek Cheikh di ko wax melokaanu Medinatul wara moom loo ko mën a defal ci àdduna loo ko mën a defal ci àdduna Abdou Saliou ah amul lu gën a rëy nga wax ko yonent bi sànq-sànq rek mhm. maa bi ma demee Medinatul Munawara mhm. ma def benn ma ma defal ko vidéo mhm. ni ko maa ngi nii ci raw rawdu sa soppe maa ngi nii rawdu ci sa xarit mais li mu ma wax dafa ne ma mosoo maa defal ci àdduna mosoo maa defal ci àdduna lu gën a lii nga ma defal. Mhm. sànq-sànq rek li mhm. gars yi nag yenn saa yi dañu naan lu tax nit gaañu lu tax naa nga mais nit bu gaañoo uskuru mahasina mawtaakum génne leen yi mu gën a rafetle. Mhm. ngeen wax ko. ñu toog ma yónnee ko vidéo bi ni ko maa ngi Medina maa ngi lay ñaanal sa cofel ci yonent bi maa ngi lay ñaanal sa cofel ci sa njaboot vidéo bi. ngay nit moom lu ko yéenee nit boo a am ah, yàlla lu rëy lii yàlla yàlla kontaan ma nekk nii xam naa su ma wootee. lii nii bi ma demee Medina la. ma yónnee ko nga xam ni moom yónent bi rek moo ko ñor. mais li ma gën a frappé ci moom mooy dina am ñu yëg dem gi. Mhm. ñu yëg dem gi mooy hôpital yi mu daan nëbbatu. Mhm. di jënd ay percal. di jënd saabu du ci yam mais ñi mu xamul muy jël engagement wu di leen sang ci sang yi gën a yiw sang yi gën a seel xam nga ni kooku du nettali sang leen laxas leen teg leen ci alalam sotti leen parfum xaalisam génn dem yoonam Abdou Saliou daan naa toog ba ci yàgg mu ma foo nekk ma ni ko damaa génn yaay mu ni ma xoolal tourné léegi nga ñëw dama bëgg ñu daal di dem euh, prison bi nekk fii bi nekk euh, Liberté 6 camp ñi fa ne xam nañ ma bu baax a baax woo ma ni ma tourner nga ñëw nank nag la ma danaan ma discret de Mouhamed yow mba àndoo kenn man ko yaay man kese la mu ne ma ñëwul ñu dem camp pénal gaaw ma am teraanga yu ma fa yóbbu ñu àndandoo ñun ñaar yàlla xam na ko dugg biir camp pénal mu jël teraanga yu bare bare bare joxe ba bi fa mujjee dugg yàggul dañ ko fa tuddee bés. bés boo xamante ni ñoom Bécaye Mbaye ñu dégg euh, doomu Bécaye Mbaye beeg euh, ba ba waa ji nekk euh, Walfadjri def journal sax jooy na fa jooy yu métti métti métti métti métti bitey ndax lan euh, cofeel bi ñu am ci moom lam fay joxe lam fay financé tey nit ñi léeg-léeg dañu naan dina am ndono mais liy jóge ci xol ak li nit di roy du doon benn loolu ci xolam la daan jóge muy xalaat ay jaamu yàlla yoo xamante ni jomb na lekk jomb na naan di leen bàyyi kooku nag bu nu ko ñàkkee ci mbaaxam te ñàkkuñu ko sax ndax biir bàmmeel yére la rek li gën a sell la ñu waxaloon muumi rek muy ku dund ci sutura jaaga kenn xamalu ko dara doo ko dégg ci détail doo ko dégg ci ay wax xoolal fi mu jaar ak fi doomam jaar ak fi borom këram jaar nga xam ne doy na mu tiitaru subak ak ngoon bu dégg ba cëg mais mosoo ko dégg ci détail mm-hmm. mos na dégg jaaga tontu jaaga boo ko gisee ci vidéo rek day wax ci Wally Seck mm-hmm. waxal Wally mbaaxam ah wala mu ñaanal doomam te nag Abdou yàlla moom moom jaam ñi mais at mii moom metti na ci ñoom mm-hmm. at mii moom metti na ba fa metti metti metti metti yam parce que man démb rek ci aljuma ji damay tourner juste kër Thione Seck may déggante ak Mouhamed fekk doomam ñu am lu ñu doon wax biñ ma njëkkee tàggee déegi rek moom laa njëkk a waxal téléphone. mais ma gis yar bi may wax bés bu nekk ni Thione yare ay doomam mën nga am xam-xam ba jeexal téere te a ko yore sa njaboot may sentir tolérance bi nekk ci Mouhamed waxam dalam mm, Mouhamed waaw euh, mënul ñàkk nit ñi yëg ko ndax sunu maam rek lañ doon xalaat mu yëg te te te wax nañ ko ko mu yaayu jaaga. mun ma wax nañ ko ko ñu si des mën nañ ko yëg ak yooyu wax ma ci yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni da xam ne ñii ay nit yu nu yar lanu mm-hmm. ay nit yu nu teral lanu waaye boo xoolee Abdou ci yonent bi fi mu jaar bi mu amee ñaari weer ci biiru yaayam ci la ñàkk baayam mm-hmm. bi mu amee juróom benni at yonent bi ci la ñàkk yaayam bi mu amee juróom ñetti at xale bu am juróom ñetti at ñàkk yaay ñàkk baay ñàkk maam amoo mag bu góor amoo rakk bu góor amoo mag bu jigéen amoo rakk bu jigéen benn doom nga kooku bu ko yàlla sàmmee ba def ko yonent ba mission dox kenn ku nekk yàlla pare na ci yow démb tey soog a ñëw kon yàlla na yàlla ko aljana te am nañu ci ya wallaahi am nañu ci yaakaar bu fekkente ni abdu cofeelu yonent bi ci nit dëgg la aljana am na gan tey hmm. bu fekkente ni laax cofeelu nit ñaar ñii laa xam ne vidéo bu ma am ci yonent bi nit du leen ko njëkk a jot bu ma waxtaanee yonent bi moom mooy njëkk a jot vidéo bi bu ma ko jotee wala ma yónnee ko Balla Gaye mm-hmm. vidéo xoolal yàlla li mu def li may wax ni du weeru rajab lañ nekk vidéo bu ma mujjee waxtaane rajab Abdou Saliou mooy bu ma mujjee yónnee meer xoolal xoolal kañ laa ko ko yónnee boo defee nii pour wax la sama sama sama xarit la mm-hmm. sama confidente la Abdou gis nga xoolal le 17 décembre laa ko mujjee yónnee vidéo bu may wax ci yonent bi weeru rajab ci la génn àdduna te weeru rajab bii laa doon waxtaane ci yonent bi bi muy jëli julli ma yónnee ko déggoo ma de weeru rajab laay waxtaane bi yonent bi di jëli julli allahu akbar ma yónnee ko ko 17 décembre weeru rajab ci la génn àdduna yow saas yi xam nañ waaye tamit ñàkk nga euh, tey euh, lan moo mën a forger ki nga xamante ni moo di Wally parce que euh, ni mu demee mu ñàkk wasilaam ñàkk ki nga xamante ni moo di papaam ñàkk ki nga xamante ni moo di magam tey mu ñu ñu annoncé ko yaayam. waaye yow yow yow mi yow mi ak moom dara Abdou ngi ko yëg sa xol ba sa bët mu ngi taa. di ba mënoo laaj. waaw yow mi ci mel noonu waaw moom mi nga xamante ni waaye juróom la te coon sekk ay doomam daf leen a yar yar boo xam ne ñoom seen biir kenn du dugg. Mm-hmm. waxin la nag mooy ñoom dañoo kolewu dañoo ànd dañoo doon benn ñoom réeroo amul ci seen biir ñoomi neen la waaye ñooñu tey bu nu ñàkkee benn monument muy seen baay ñu doxal at yu néew ñu ñàkkat beneen monument tey tey day metti ci waali nag parce que bu dul woon baayam yaayam la bu dul yaayam muumi muumi dem bu yàggul mu bës xolam dem eggali contrat jàmbur nga ñëw même pas un an benn at parce benn at nga mën a wax parce ay weer la ñeent fukki guddi yàggul ci la maire dellu maire ñeent fukki guddi la dellu France ñu déggante fi mu ñëwaat tuuti rek dem delluwaat mooy feebaram tey Wally ñàkkaat ku mel noonu nekk xale ak coow yi dal ci kawam ak mu nekk jàmbaar du tontu te teraanga yi ñi muy àndal ci lii lañ nekk te fii ak weer lu ci def ñu ne deew yaayam sa ko fii ak ñaari weer lu fi def ñu ne deew yaayam safu ko fii ak at lu mu fi def ñu ne deew yaayam safu ko Abdou yooyu ngay xalaat ni muy mettee ci nit ki. te yéen fréquenté wu leen kër googu mais boo duggee kër googu nga xam ni jaaga mooy jàmbaar après mu dem bu demee tey ñaata nit la jaaga doon dundal ñoo xamante ni dëkkuñu ci kër gi dafa am loo xam ne mënu ma ko nettali ci ci ci média mais nga xam ni nitu sutura am benn waaye bu def benn affaire benn jour ci kër gi juste ma fekkee ko man ajjuma fu ma génnee télé rek damay dem añi ji ak maire ajjuma fu ma génnee rek maa ngi wane euh, maa ngi def esthétique benn video boo xam ne juste fekk doom ji dem ziare ji coon doom ji bu bu ziare jee coon bu egsee balaa muy def dara rek day jaar ci yaayam tàllal ko loxo vidéo bi aljuma la tombeel même par aljuma ma dem ñëw fekk nit doom ji jóge gis nga dem zi jaale ji euh, euh, ziare ji papam bi mu bisee muy bintu day sukk jox yaayam bopp yaayam ñaanal ko ñuy waxtaan benn bis bintu ñëw indil ko ay ay ay ceeb yu bari teraanga yu bari mu ne ma Mouhamed euh, jigéen ñi nañu muñ jaay naa la mu or ndax bëgg a dundal sama njaboot bintu mi fi mais xoolal li ma indil ci rabitaay ma tey yaa ci yam te ravitaillement bi xam nga ne xajul ci kër gi ñeneen ak ñeneen mën na cee dund waaye jigéen ju nekk lii la waroon ñaan ci këram dem ba njabootam di ko defal lii mu ne ma li koy maye nag mooy toog muñ mu metti mu neex tey bu ma jaayoon benn or li muy indi moom sama njaboot ëpp na ay or mhm. mission mat na jeex na dem na waaye xam naa ni bu duggee ci biir bàmmeel ñu ko wanoon jëmm yonent bi ni ko kii kan la mu ni sama waa ngi nii jaaga booy wax yonent bi muy jooy déggoo vocal bi ma la tegal. dama dugg Medina moom laa xalaat. man ko yaay dama ko appel vidéo sax jotuma ko ma wàcceel ko vocal ma ma yónnee ko vidéo ni ko yaay maa ngi ni ci sa kanamu soppe bi ziyaare ziyaare si naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ma kaalis bu ma kenn joxul Mouhamed bu ko wax de nit ñi dañoo xaw a doy waar sama ngànneele noonu bis bi ma amee doom bu góor ma ne ko yaay. soxna si am na doom bu góor mu ne ah ci sama waaj ji mu xam ne daal sunu waaj amul morom sunu waa ji daal am na fi tërandoo nii rek. wallahi xola ci saasi saasi mu génn deux cent cinquante mille ni ma njëgu meewu moom du wax sama soppe de suñu tërandoo rek la wax yonent bi njëgu meewu suñu tërandoo ngi noonu deux cent cinquante mille yi jëndaleel jëndaleel ma ko tërandoo yonent bi meew ba mu xam ni man ak moom dinañu jàkkaarloo. kooku nag yonent bi la am am na bés euh, ma dugg ci biir kër gi noonu ñu am lu ñuy waxtaanee rek. Alioune euh, li may wax ni dañu may seetaan ñoom njaboot gi euh, Mouhamed wàcc ñuy waxtaan ci yonente bi mu ne ma man lenn mooy naqari sama jour Mouhamed mooy ma dem ci benn tudd toog di xaar ñu tuddee doom ji keneen ko dul yonente bi doomu coon laax de Mouhamed mu ne bu ma demee ci tudd gis doom ji ñu tuddee ko keneen ko bi sama journée day yàqu ndax cofeel boobu tey tey tey tey ñëpp dañoo waaru ñu doon waajal ñu nekkoon ñoo xam ne seen bopp. semaine bii passé laa dem fi ñu fi ñu fi ñu fi ñu euh, jullee muumi mm-hmm. imaam bi daf ma ràññee ràññee ba bi ñuy waxaat la naan ma njabootu coon sekk gi xolal fajar gi fii lañ koy jullisee mun ne ma lu seen bàyyi doon def dañ koy def du ma réeroo ak ñoom jour anniversaire Alioune aljuma la tombeel maa njëkk def vidéo ci biir kër gi la ma fekk mu génn ñaari jàllaa bi may ma ko bu dee yaa ngi doon xool ba may tooñ dama ma benn xaj bu newoon foofu di ma laaj làmb ji koo faral ma naan ko ma koy tooñ naan ko noonu Modou Lo laa faral mun ma par force amaa ngay faral boo xaj bi mu ñëw ma ne ko maa ngi ci amaa kon yaakaar naa ni euh, kër googu am naa fa am naa fa am naa fa tur. Mm-hmm. ci sama diggante ak ñoom li ko waral du oustaz Mouhamed Mbaye mu seen TV déedéet li ko waral mooy kii missionnaire yonent bi la yor mm-hmm. yenn saa yi damay toog ba ci ak mu ne Mouhamed euh, euh, yonent bi bi mu tollee fi lu xew ma ne ko yaay nangam ak nangam moo xew mu ne ma ci kenn du sama waa ji ndeysaan ibbi fosetam bu ndawee ba ndaw ci yonent bi mu ma cent mille francs bu ma ñëwee damay romb rek nuyoo ñun ñaar ñu toog ba añ jot ñu añ ñun ñaar naan attaaya léeg-léeg ma jiite ko julli tàkkusaan ba pare këram bu ma jógee jumaa ja daal di ko kooku nag wallahi yonent bi am na gan. coon am na gan muumi am na gan wallahi yàlla xam na ko yonent bi am na gan gu mag a mag a mag a mag gis nga bu dee li alxuraan ni man amila saalihan fa li nafsihi ku def lu baax yàlla fay la. mu ngi fekk ay néew yoo xamante ni dinañ wax ni jigéen ji moo ñu doon sang kii moo ñu laxas ci teraangam te yàlla nag naa la xamal dara de mbër yàlla du la làmb mbalaanu sutura ba kenn xamul ci yow lu dul lu baax yàlla woo la ci moom ba nga ñëw muy jëflante ak yow leneen yàlla jomb na loolu. yàlla na yàlla xare ko aljana waaye ñeewante naa waali wallaahi ñeewante naa ko ñeewante naa ko bu baax a baax a baax a baax a baax ñeewante naa ko bu baax a baax a baax a baax parce que yaayam dafa nekkoon baaraasam. mu rus yaayam waaye lu mu am balaa muy kontaan kii ne jot ci waali balaa muy bég daw ñëw ci yaayam gis nga mbir yi du léegi Abdou Saliou tabaski lay metti ñu bañ a gis seen papa bañ a gis seen yaay bañ a gis seen mag ñoom rek ñu ne ci kër gi yooyu ñooy metti bés yooyu nga xam ne bés la yoo xam ne dafa leen di manqué ba dara dootu leen neex bésu feet yooyu bésu wéttali konte yooyu ngay xamante ni ñàkk dafa metti te jaaga dafa jàmbaar ci njabootam li ma leex nii du léegi de mais ñu dem ba tabaski jot nga xool ni mu daan taxawee xoolal buy ñaanal waali ci dënn bi lay jóge billaahi lay wax doo torox di ko ñaanal ba xoolal daaw la tombeel tabaski daaw xoolal tabaski ren di ko fekk mu fekk Papa Thione Seck yal na yàlla xare ko aljana yàlla na yàlla foofu di noflaayam yàlla na réccu lu mu fi doon yàggee wallahi yonent bi am na gan li ma lay wax nii sama xol laa ko tibbee yonent bi am na gan gu mag a mag a mag a mag a mag yonent bi dafa ni maxtulita xubbi fii qalbi ahadin ilaa wa xarama allahu jasaduhu min an naar yonent bi nee na bépp xol bu ma sob yaram ba ëmb xol boobu araam na safara bépp xol laa bu ma sopp yaram ba ëmb xol boobu araam na safara waaw léegi xolal ni mu meloon ci yonent bi ñàkk sago ci moom di xalaat li ko naqari yéen du ngeen xam jàngat bi may wax ci njabootam gi nu ñu ne dañoo nekk ay xale dañoo dugg ci benn cirque boo xamante ni cirque coow la doo ci dégg yenn détails yi seen yaay nekk jigéen ju mat ba kaare lu waay daw daw daw boo ñëwee ba ci catu pied kër gi di nga xam noo fay duggee bi may daanelee mooy ku ne war ngaa oyof ku ne war ngaa wàcc li coon sekk tabax ni mu toll nekkul mag réaliser ko dëkki ko yàggul mu dem njabootam a taxoon mu tabax ko ak soxnaam soxna si ba fi kër gi coon sekk ba fi kër gi ay njaboot yu ndaw des fi ma ne kon ku mu doon ci àdduna loo mën a yor ci àdduna war ngaa wàcc sa bopp xam ni loo fi loo fi gis day jeex coon way na ko ba tàyyi way na mbaaxu jaaga ba tàyyi tey papa coon nga wax mu ngi ci biir bàmmeelu almeeru yoo fi tey ana ana ana ana ana jaaga mu ngi ci biir almeeru yoo fi ngay xam ni lépp nettali lay mujje yàlla na yàlla xare ko aljana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam